mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ni moo ñu wërsëgal ñu daje di fàttaliku yenn ci ay kàddoom ak waxi yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan borom bi boole ñu ci jaamam yi nga xam ne dañuy gëm lam wàcce ci yonentam ci wërsëgal ñu it ñu daldi koy topp ñu ngi dalalit di ñaanal sunu mbokk yi nga xam ne ñoo koy déglu en direct ci situ xam sa diine bi ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole wërsëgal ñu ak dégg akub topp bunt bi ñuy jël tey mooy ñaar fukkilu buntu ci téere bi di riyaadu saalixiin baabun fi dalalati ala xayr wa du'aa'i ila ila huda aw dalaala tey bunt bi ñuy jël mooy tegtal boo xam ne dafay wone jëm ci yiw ak woote jëm ca la nga xam ne mooy xudan ak njub awit dalaala wala loo xam ne ak réer la mi ngi ko ubbee waddu ila rabbika xadis ba mu ciy jëkk a wax mooy xadisu 173 ba incha allah kon ñu bàyyi sunu mbokk bi mu jàngal ñu ko لجيتو
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة قال تعالى وادع إلى ربك سورة القصص وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سورة النحل وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير آل عمران وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا رواه مسلم
kon ñaar fukkeelu buntu ci téere riyaadu saalixiin buntu la buy wone ay tegtal ci jëme ci yiw ak woote ila huda aw dalaala woote ci njub walla ak réer mu indi ci ay aayaat ci téere borom bi ba mu ca jëkke mooy qaala taala wadu ila rabbik sunu borom mu ne wooteel jëm ci sa borom wa qaala taala udu ila sabili rabbik wooteel jëme ci sa yoonu borom bil xikmati wal mawizati al xasana nga teg ko ci ak xereñi teg ko ci xuppaate boo xam ne bu rafet la wa qaala taala wa taawanu ala al birri wa taqwa dimbalante leen ci lépp luy jur njëkk ak ragal yàlla wa qaala taala wal takum minkum ummatun yaduuna ila al xayr na nekk ci yéen xeet boo xam ne dañuy woote jëme ci yiw xadis ba mu ca jëkk a wax mooy xadisu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci téere bi mu ne wa an abi mas'ud uqbata ibnu amr al ansari al badri radiyallahu anhu qaal mooy saxaabi boobu nga xam ne fekkee na badar man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajri fa'ili ku woote jëme ci yiw day dana am kemuk yoolu ka jëf yiw boobu mu woote jëme wa an abi hurayrata radiallahu anhu an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal abi hurayra it nee na yonent bi alayhi salaam de daana wax man daa ila huda kaana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'a ku woote jëme ci yiw day dana ko ñeel ci yiw yiw wutal ne ña nga xam ne ñoo ko ca topp laa yanqusu zalika min ujurihim shay'a loolu du wàññi ci seen pay ya dara wa man daa ila dalala ku woote jëma ci cànkute nag kaana alayhi min al ismi dana nekk ci kawam ci bàkkaar mislu asaami man tabi'a lu tal ne bàkkaaru ñu ko ca topp laa yanqusu zalika min asaamihim shay'a loolu du wàññi ci seen bàkkaar ya dara mbokk bunt bi ñuy jël day wàññi ne doomu aadama yi ay façon lañu am na ci ñoo xam ne seen yoon nekkul ci dara am na ci ñoo xam ne ña ngay jaamu yàlla waaye seen bopp dong la ñuy téewoo am na ci ñeneen ñoo xam ne dañuy woo nit ñi jëme leen ci réer am na ci nag ñeneen ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla di woo nit ñi jëme ci jaamu yàlla yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu moom la sunu borom ubbee ni wooteel jëme ci sa boroom mbokk li yàlla sant ab yonentam la sant ñi topp yonentam mooy nañu woote jëme ci sunu boroom bokk na nag musiba bu ñu yàlla nattoo mooy bi ñu demee ba créer ay mbooloo ci biir lislaam nit ñi au lieu ñu woote jëme ci yàlla dañuy woote ca ko sos mbooloo moomu kooku la ñuy jox garaat yoo xam ne yonent yàlla amu ko kooku la ñuy jox seen bopp seen xol seen lépp loolu nag mbokk mooy musiba bi nga xam ne moo tasaaroo tey ci àdduna amma kuy wax ci yàlla tax warul woon nit ñi jëme ci Abu Bakar wala Ali wala imaamu Malik wala ci Bukhari dafa war a woo nit ñi jëmal leen ci yoonu yàlla ci yàlla subhanahu wa taala xam ne yàlla rek kay yàlla keneen ku dul yàlla ab jaam nga keneen ku dul yàlla mënuñoo jëriñ lu dul jotti li ñu la yàlla bëgg jeex na beneen aaya bi sunu borom ne wooteel ci sa yoonu boroom ila sabili rabbik te loolu itamit mooy mbir mi ndax woote ci yàlla am na ñu koy def waaye nu ñu koy waxee kaay leen ma xamal leen yàlla kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla ci ay xuraafaat ak yoo xam ne ni kenn xamul nu mu demee amma sunu boroom dafa am yoon bu jëme ci moom ñu ngi noonu yoon bu jëme ci moom soo demee ni naan la yoon bi moo jëm Kaolack kii moo jëm Saint-Louis kii moo jëm Kaza sunu boroom yi dafa am yoon bu jëm ci moom yoon boobu lan mooy alquran ak sunna qul haadihi sabili ad'u ila allah loolu moo tax ba dañoo war a woote jëm ci yàlla naam waaye dañ caa war a wootee jaar ci yoon bi yàlla tëral na moo jëm ci moom amma tey boo doon woo nit ñi ne da nga leen di yóbbu Saint-Louis daal di jàdd ak ñoom jëm yoonu Ngor loo gën a dox gën a sori Saint-Louis am déet ñu ngi noonu loolu di mbir yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax sunu borom it mu ne woote boobu yaa ngi ci yoon bi naam xam nga li mooy alxuraan ak sunna nga war cee woo nit ñi borom bi mu ne na nga ko defee xikma bul taxaw rek ne def leen lii def bàyyi leen lii su ngeen ko deful safara ngeen jëm ilaa axiri déedéet mooy ku nekk ak nañ ko war a woowe nañuy woowee kilifa bokkul ak nañuy woowee ku dul kilifa nañuy woowee ki xam bokkul ak nañuy woowee ki xamut loolu xikma mooy teg lépp ci place am waxtu wa ñu war a wootee dafa am solo nit ki du occasion bu ne rek nga war a wootee déedéet am na ñoo xam ne boo waxee ñoom ci mbooloo rek ñàkk nga leen fokk nga bàyyi ba wéet ak ñoom jaare ko ci nam gën a rafete ci yar ak teggin wax ko la nga koy wax mu dog ko nangoo jëfe loolu kon mooy xikma bi sunu borom it mu ne nañ ko def mawizatul xasana léeg-léeg benn waay itamit day xam fettirlu bëgg a def ak mbon ku mel noonu war nañ koo xub ragal loo ko borom bi subhanahu wa taala ndax moom xam na léegi leen ma des xupp ko yow li nga def xam nga ne baaxul yàlla da ko xaraamal ay sama mbokk ju di ragalul yàlla waaye xupp gi it na rafet bu ko ne safara nga jëm wala nangam nangam wala nangam nangam comme la nga xamee ni noonu la borom bi waxoon Moussa demal ci Firawna waaye wax leen ko wax ju nooy la'allahu yatazakkaru aw yaxsha amma boo dellu woon ci aaya ba fa mu jeexee sax suratul nahl sunu borom ma ngi ci teg wa jaadiluhum billati hiya ahsan léegi nag am koo xam ne day ñëw di dàgg seen teg yow xam ne dëgg lank ko bëgg nag neenal sa dëgg googu na doon chrétien le juif la wala jurit bu saay-saay ko mel ne dañu war a dàgg seen teg moom waaye lépp na mu gën a rafete loolu mbokk mooy diggante médecin ak malaatam médecin yi xam ne kii daa feebar traitement bi mu koy defal metti na muy naxanteeg moom pour mu jël ko waa ji woote ci yoonu yàlla yëpp noonu lay jàppe jurit bi feebar sunu borom waxin ne day leen dimbalante ci njekk ak ragal yàlla taawunu al birr wa taqwa nu ñuy dimbalante ci njekk ak ragal yàlla la ci jiitu mooy xam-xam jaami yàlla yi il faut ñu xamal leen li baax ne lii mooy li baax lii la yàlla bëgg doog leen caawoo il faut ñu xamal leen lu xaraam doog lañ caa dox seen diggante ak ñu bañ koo def lu baax loolu nag na doon lu aju ci diine ji la lu doon lu aju lu tax àdduna yi dox ci jàmm loolu lépp boo ko dajale mooy birr jullit ñi dañ cee war a dimbalante ñu ngi noonu jàkk ji du benn nit a ko tabax ay nit a daje ku dee def sa ñaar dërëm dërëm ñu dajale tabax jàkk loolu mooy taawun alal birr ba baa exemple diine yi di jeex ragal yàlla it naka noonu la fokk ñu fexe ba xeex lépp luy bakkaar terante ko sunu biir mu ngi noonu ak taqwa mooy doxale sa digganteeg mbugalu borom xijaab lépp looy def ba mucc sa mbugalu borom loolu la ñuy tuddee taqwa loolu dañ cee war a dimbalante ayat yi bi nga xamee ne nii jàng na ko ba mu ca mujjee mooy wal takkum minkum ummatun yad'una ilal xayr ay yéen jullit ñi ne nekk ci yéen borom xam-xam yu am ci ixtilaaf ndax wal takkum minkum day firi rek mooy ba'dukum na am ñenn ci yéen ñuy jóg di waaraate di déglu lu baax di tere lu bon am na borom xam-xam yu ko gisee noonu mooy société bi bu amee ay borom xam-xam yu taxaw di waaraate déglee lu baax di tere lu bon ñu ci des ñëpp wàcc na leen fardul kifaaya la donte ne am na ñu ko dégg ci déggin boobu moo gën a mat ne yàlla jullit ñi lay waxal mooy nekk leen xeet buy déglu lu baax di tere lu bon ku nekk sa kemtalal kattan war nga ko déglu lu baax tere lu bon. kii kattanam mi ngi yem ci këram kii kattanam mi ngi yem ci jàkkaam wala quartier kii kattanam mi ngi yem ci réew mi ila axiri mais jullit bu nekk foo war a toll war ngay déglu lu baax di tere lu bon mu nekk baatu boobu nga xam ne mooy baatu umma donte ne dina firi ñeenti façon déggin ci lislaam waaye almuhim mooy jullit nga xam ne sama waru gar la ci may déglu lu baax sama waru gar la ci may tere lu bon loolu mooy aayaat ya ca wàcc am naa waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ñëw di leeral alquran waaye du safaanoo mukk ak alquran xadis bañ cey jëkk a jàng mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku tegtale jëm ci baax day payu ñëkk a jëfe yépp da koy am mi ngi noonu doonte na alxayri nañ koy waxoon sunu darsi bi passé mbokk bu ñu waxee yiw rek muy sunna du création biddaa biddaa mënta nekk xayr abadan biddaa dalal la alxayr nag muy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne dem na ci mbooloo am benn sunna boo xam ne xamuñu ko ñoom nga fexe ba dekkal ko ca mbooloo ma ku ko jëfeete ba ilaa yawmi diin da nga ciy am tuyaaba képp koo xam ne ak jaamu yàlla ngi nit ñi sàgge na ko nga daal di fexe ba nit ñi fàttaliku ko di ko def da ngay am tuyaaba boobee doonte ne it mbokk tuyaaba bi balaa mat day fekk ne yow bu dee mën nga loolu nga def ko bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy diglu lu baax ci duñ ko def di tere lu bon ci duñ ko bàyyi su boobaa loole musiba la lay jural ci yeneen xadis waaye lu baax la ngay digle bu dee yow loo am kattan la na nga koo jëkk a def doonte ne léeg-léeg du lu baax lépp ngay am kattan pour mën koo def yu mu aji digle waaye soo ko mënee def ko dañuy wax kenn ci borom xam-xam yi jiitu woon ñu koy wax ibnul jawzi bokkul ak ibnul qayyim jawzi rek bi ngeen miin kenn kii beneen borom xam-xam la bu yàlla mayoon ci wax ba dañ daan jumaam la fa daan daje daan jege ay téeméeri junni nit daana xutba ba ñenn ñi sax léegi rek nga gis ñu ciy faatu loolu yàlla moo koy def ñeel ku ko neex nee nañ benn jaam dafa ñëw ci moom na ko imaam waaye xutbal ci goreel jaam waay ndax man ñu goreel ma ci sonn naa lool ci ñaab gi ñu may teg mu ne ko wax dégg naa la ñu toog ay weer xutbawul ci wàllu jumaa ji wàllu jaam yi bis rek mu daal di xutba ci wàllu jaam xam leen ne jaam lislaam ma ko fi indi waaye yàlla da ko def occasion pour ñu am ngërëmam képp ko goreel jaam képp ko bokk ci ñuy goreel jaam wax li ci yàlla wax ba ñu xëyee suba dëkk bi presque ñu ëpp goreel seeni jaam ba jaam ba ko doon sàkku ndimbal bokk ci ñuñ goreel mu ñëw na ko imaam jërëjëf waay waaye nag imaam da ngaa yéex a wax ba ma la ko waxee ba léegi ngay doogu xutba mu ne ko waaw ba ma ko waxee de fàttiwuma ko waaye booba dama amul woon kattan gu ma goree la jaam ba ma yàlla wërsëgalee nag ba ma jënd jaam ba goreel ko ca lay doog a xutba gis ngeen loolu mbokk loolu muy wane ne lépp lu baax luy digle soo ko mënee dee ko def bala nga koy digle amaa lu bon looy tere moom jëkk koo bàyyi te bàyyi lu bon moom ñëpp ko man waaw bàyyi lu bon tere lu bàyyi tere lu bon amaa bu dee ne da ngay teru lu bon koo kii wëlbatiku gis la ngay def lu bon loolu day jàpp ne borom xam-xam yépp a yem dañuy coow rek waaye li ñu lay tere ñu ngi koy def ñu ngi noonu léegi lañ gis médecin buy tere ab client bàyyi sigaret bala faa jóge moom mu gis ko muy tux nga naan médecin bi daf may fonto mu sigaret ba doon mu tere ma ko mu mu bàyyi ko loolee kon di mbir boobu ñaareelu xadis bi dañuy gis ne yonent bi alayhi salatu wasalaam daf ne ki nga xam ne dafa woote jëme ci yiw kooku day yoolu ñépp ñi ko topp day am tuyaabaam waaye contraire bi naka noonu ki jëkk a jàngale lu bon ci dëkk bi ki fa jëkk a jàngale lu bon dëkk boo xam ne mosuñu xam naan sàngara nga ñëw ubbi fa kalandoo ba ñuy naan sàngara ba ilaa yumi diin ku fa naanati kaasub sàngara nga am ci sa fay dëkk boo xam ne benn jigéen ñi mu faa sol pantalon benn xale bu jigéen dem Dakar ñëw sol fa pantalon ba xale yi dëkk bu yépp di sol pantalon loolu lépp da ngay gis ni day dellu ci moom ilaa axiri ci misaal yi ñeen mën a jox doonte ne woote jëme ci yiw làmmiñ da koy def jëf di ko def jëf lu baax léeg-léeg nit ñi gis la ci ba roy la ci lu baax loole fekk na mosoo wax ak ñoom naka noonu jëf lu bon am na koo xam ne roy na ci yow lu bon fekk mosoo wax ak moom loolu it muy wane ne jullit war ngay bàyyi xel ni yow say wax ak say jëf yépp dafay jeexital ca la nga xamee ne ni moo la wër amma sa làmmiñ la wala say jëf heure boo wootee jëme ci yiw képp ku la ca topp yàlla dana la may yool bu tol noonu mi ngi noonu
العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان والكسر أفصح
bokk xadis bi nga xam ni mooy téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ci téere riyaadu saalixiin kiñ koy jàngal mooy abil abbas sahl ibn saadi as-saaidi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yawma xaybar yonent bi de waxoon na bisu xaybar ba la utiyanna raayata gadan danaa jox drapeau bi suba rajulan yaftaxu llahu ala yadayhi góor goo xam ne yàlla dana ubbi dëkk bi ci ay loxoom yuhibbu llaha wa rasula dafa bëgg yàlla bëgg yonent yàlla wa yuhibbuhu llahu wa rasulu yàlla bëgg na ko yonent yàlla bëgg na ko fa baata annaasu yadu yaduukuuna laylatuhum laylatuhum ayyuhum yu'taaha noonu la fanaane nit ña di waxtaane seen guddi ga mu ana kan mooy jot drapeau bi suba falamma asbaha annaas gadaw ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba nit ñi xëyee ñoom ñépp ñu xëy jëm ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yarju an yu'taaha képp kenn ci ñoom ma ngay yaakaar ñu jox ko drapeau bi fa qaala ayna aliyun ibn abi talib yonent bi ne waa ana ali fa qiila huwa ya rasul allah yashtaki aynayhi ñu ne aliyun day ma nga tëdd day jàmbat bëtam ya ci wànnent bu tar ngi noonu yonent bi alayhi salaam qaala fa arsilu ilayya mu ne na ngeen ko yónni jëme ci moo ci man aw ilayhi yónni leen jëme ci moom fa utiye bihi ñu daldi indi ali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa basaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi aynayni yonent bi daal di ëf tafli ci ay bëtam wa da'alahu mu daal di koy ñaanal fa baraa xatta ka an lam yakun bihi waja noonu la wére ba mel ni dara mosu koo dal ci lor fa ataahu raaya mu jox ko drapeau bi fa qaala aliyun radiyallahu anhu ya rasulallahi uqaatiluhum xataa yakunu mislana mu ne ko ndax yu mu yàlla yun damay xeex ak ñoom bañ mel ne ñun fa qaal unfuz ala rislik mu ne ko demal sax ci sa allure boobu mooy sa doxin boobu xataa tanzila bi saaxatihim ba baa ngay wàtti ca la nga xam ne mooy seen ëtt ba summa duhunna ila al islaam gannaaw ba nga woo leen jëme ci lislaam wa axbiruhum bima yajibu alayhim min min xaqillahi taala fiihi nga xabaaral leen ca la war ci ñoom ci àqu yàlla ci lislaam boobu fa wallahi maa ngi lay waatal yow ali la an yahdiya allahu bika rajulan waahida yàlla jubala ci yow benn góor xayrun laka min xumru na am loolu day moo gën min xumri ni am moo gën ci yow la nga xam ne mooy giléem yu xonq ya mbokk xadis bi gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogaloon na téere tawraat mu wane ci ay misaalam borom maa ngi ko wax nabiyul ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawraat wal injil bokk na lu yahud yi xamoon yonent axiru zaman fu mu mën a juddoo it madina mooy nekk balluwaayu lislaamam yahud yu bari ñëw dëkk biir madina am ñenn ñoo xam ni tamit ñi ngi dëkkoon ci xaybar soriwul madina ñi ngi nekkoon à peu près ay cent cinquante à cent soixante kilomètres de de madina foofu dafa nekkoon benn forteresse benn tata ndax li yàlla wax yahud du dëkk lu dul foo xam ne fu siir la laa yuqaatilunakum jamian illa fi quran muhassana ñoom ñu dal xaybar yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ keroog ba mu génnee lenn giir ci ñoom da mel ne ay banni nadir ay banni qunaa ñoom dañoo dem dali foofu ci xaybar xaybar googu fa la ñu nekk ba sunu boroom dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam déclaré leen pour jihad fi sabilillah léegi ñu daal di dem commencé xeex yàlla dogal début ba xawoon am jafe-jafe yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu julli gee ba pare mu ne suba day danaa jox drapeau bi ca islamit bu daan xeex comme ni ngeen ko xamee yéefare yépp dañu am drapeau koo xam ne kilifa kuur drapeau bi mooy jiitu buñ ko reyee keneen jël drapeau bi danaa jox drapeau bi góor goo xam ne ku bëgg yàlla la ku bëgg yonent yàlla la waaye yàlla ak yonent bi it bëgg nañ ko gaa yi bëgg yàlla bëgg yonent yàlla lu baax la waaye mbir ma dëgg-dëgg mooy yàlla ak yonentam bëgg la yàlla na yàlla ak yonentam bëgg ñu ngi noonu ca yàlla ak yonentam ka ñuy bëgg mooy ka jaar ci fa leen neex loolu bu la yàlla ak yonentam bëggee fokk jullit ñi bëgg la loolu tax kuy jullit day bëgg Ali Ali ibn Abi Talib loolee ñu bàyyi ci xel bañ chia yu bon yi ak parparloo tax Ali di xaw a suufe ci ñun doomu aadama mu bëgg bëgg parparloo day gis parti politique yi rek kii uute joo parti doo bëgg ñu tudd ko mi ngi noonu sama mbokk bi saaxa daf may wax way yi xale yi daan way ci jamonoy Lamine Senghor suñ mbokk libu yi dañ daan wax bopp Lamine in li bi door ko in raay mooy bopp Lamine daal ci gàttal dañ koy parfum daal di koy raay bopp Senghor in pétaral ko in taal yaa ngi dégg su ko defee loolu mooy mbir bi nga xam ne moo am ci opposition loolu nag suñ mbokk chia yooyu ngalawaay buñ ñu ci yóbbaale wallahi mbokk jullit yàlla nañu yàlla nangul nangul leen gannaaw yonent yàlla yi benn doomu aadama laa tudde doom muy ali ibn abi taalib la ma gëm mooy abubakar a ko gën omar a ko gën usmaan a ko gën waaye pour bañ a am benn effacé ci chia yu bon yooyu nañ parparloo aleeg ahlu bayt jàpp ne sunnit yi dañ leen a bañ loolu moo tax ma tudde ko ali ibn abi taalib mi ngi noonu yàlla na yàlla def kook seen njaboot yépp ñu tege ci yoonu Ali ibn Abi Talib waaye li ñu bëgg a wax rek mooy doomu aadama boo yàggee dégg alhamdulilah xëy na ndaw ñu bari amuñu accès ci seeni téere waaye loolu la ñuy wax ñu dañoo bañ famille yonent bi dañoo kasa dañoo kasa waaye mbokk loolu dara amu ci ala kulli xaal ba demee ci ahlu sunna yi xawma ñaate borom mi xam-xam ñoo tudd alin ah alin ngay bu cenaba alin ngay bi ngeen xamoon jàmbaar yu sunna boobu nga xam ne moo nekkoon daaray Padoa Alioune Gueye bu Louga ci ñoo xam ne ay doig yu mag lañu pour wax leen rek misaal ala kulli xaal bépp jullit war na bëgg Ali ibn Abi Talib jullit a koy bëgg ku ko bañ rek naa fekk nga yéefeer nga kon loolu dana yàlla dana ko bëgg yonent yàlla gannaaw ba itamit ah mooy moom ko bëgg yàlla ak yonent yàlla léegi nag nit ñi xëy am na ci yeneen riwaayo Omar ibnul Xattaab daf ne musuma bëgg a jiite armée lu dul guddi keroog nit ñi xëy ku nekk naan ah waaye ngeen foog ne kan moo yor drapeau bi ñu naan boo demee diw la boo demee diw la boo demee diw la waaye ala kulli xaal comme ñoom ñëpp bëgg nañ yàlla ak yonent yàlla xëy nañ ku ne jàpp ne man man la ñuy woo jox ma ko kulluhum ndax saxaaba yi ñëpp bëggoon yàlla ak yonent yàlla ah bi ñu xëyee suba yonent bi alayhi salaam xool mbooloo mi xool mbooloo mi xam naa ne caamin yaa nga yuqamte ko ku ne di xool ndax ñu jox la ali ndaa dina waaw ana ali ibn abi talib ñu ne ko alin de ñëwul alin ñëwul de ma nga tëdd bët yi dafa newi ci wànnent mi ngi noonu dafa newi ci wànnent ba ma nga tëdd ali yeneen ci bàyyi sam ne dem leen ngeen indil ma ko gaa yi dem ànd ak ali jàppoo ko indi ci yeneen ci bàyyi salaam yeneen bi daal di tafli ci bët yi ñaan bët yi na xefeet mi ngi noonu am na riwaay yu wax ne keroog la Ali mujj a jàmbat bët ba ni mu duggee biir suuf ba dina xefeet lépp wér ci saa si yeneen ci bi alayhi salaam daal di koy jox drapeau bi ne ko demal demal nga xeex ci yoonu yàlla Ali ibn Abi Talib daal di na ko waaw ndax yow mi yàlla yónni dama leen xeex ak ñoom bañ mel na ñun nekk ay jullit mel na ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne fii da ko tënk mën na ko demal ci sa doxin bi ala rislik donte ni bu la neexee jàng ala raslika comme na mu koy leerale ci suuf ñaari làmmiñ yépp am bu la neexee rislika raslika donte ne rislika moo gën a wér ba baa ngay dugg ci seen dëkk ba ndax fokk yàlla dañ la ubbil soo demee ba dugg seen biir nag woo leen ne leen kaay leen ngeen dugg ci lislaam te xamal leen luy lislaam te loolu it mbokk lu jar a leer la bari na ay ñu ñuy woo dugal leen ci lislaam ndeysaan te xamuñu luy lislaam gis naa benn tubaab bu daan ñëw fii ci man ndeysaan duggoon na ci lislaam mais ñan ñoo ko dugal ci lislaam mooy ñi nga xam ne dañ jàppale seen lislaam amul julli amul woor ndeysaan te daan toog ak man lu mu wax ne jërëjëf Cheikh diw bon après nag bokk na la ma ko doon wax mooy yow intellectuel nga yàlla baax na la ba dugg nga ci lislaam mais nag des na la lu rëy mais nga xam luy lislaam il faut nga jënd téere yi wax ci lislaam jàngaleen mooy lislaam mais dugg naa ci lislaam taxul nga xam lislaam moo tax Ali yonent bi ne ko woo leen ci lislaam mais leeralal leen lan mooy lislaam bokk lislaam mooy taxawal julli war weeru koor génn zakat aj makka gannaaw ba nga gëmee li nga war a gëm loolu woo leen jëme ci loolu mu ne ko Ali maa ngi lay seedal ni yàlla jubale ci yow benn nit moo gën bu doon suñu jamono yi tey jii oto yi gën a cher na doon Rolls ngay wax ak wala lu mu mën a doon ala kulli xaal oto yi gën a cher te jamono yeneen ci bàyyi salaam moo doon gileem yu xonq lu raaroon la ci arab yi kilifa dëgg ka daan am mu ne ko nag nga am ay gileem yu xonq day nga fexoon ba kenn ci yow jóoba ci jaamu yàlla moo la ko gënal ndax yéefir bi nga woo ba mu dugg ci lislaam mboole mi julleem mboole mi kooram mboole mi njaboot gum ca am mboolem kum ca woo bela yu mi diin lépp lañ lu koy bindal kon loolu moo gën loole mbokk dañuy gis ne xadis ba foofu la yem waaye la ca tegu mooy Ali ibn Abi Talib ba mu xëyee suba na ko yonent ba xewoon noonu la ko yàlla may mu ubbi xaybar wala mais sax ci téere siira yi nee nañ keroog ali am na seen bunt ba ba mu koy tampon di ko daaneel bañ xaree ba pare lu jege fukki góor ñëw nañu mënuñu ko yëkkati ca moom moo ko ubbi loolu muy wane la yonent boo xam ne yàlla dana la ubbil kon yàlla ko ubbil mi ngi noonu radiyallahu anhu def na fa it ay kawteef yu rëy ci xeex bu mu fa xeex ak benn yéefar bu mag bu ñuy wax marhëb boo xam ne na mu rëyee woon jiggi na dayo so delloo ci gàmm ko dinañ ci wax lu bëree bëree bëri ala kulli xaal waa xaybar noonu la ko yonent bi ubbee ba ko yonent bi ubbee it gàññe leen ñu ne ay yomi yonent bi wala boog yow muhammad ñun dëkk bi ñoo ko xam tool yi ñoo ko xam dañoo bëggoon nga bàyyi ñun ñu gérer tool yi donte ñoom nanguwuñu dugg ci lislaam ñu gérer tool yi di la jox jizya te loolu it moo dina ne islaam nii lay xeexe heure bu ñu ñëwee ci dëkk dañ leen di wax kaay leen tuub dugg ci lislaam ngeen mel na ñun ñu bokk lépp ñu dem bàyyi leen su leen nanguwu leen kon bàyyi leen ñun ñooy gérer dëkk bi yéen ngeen di joxe impôt muy jizya suñ nanguwul nag ñu doogee xeex ak ñoom yahud yi nag dañoo d'accord ne ñoom dañuy joxe jizya yonent bi bàyyi leen ak tool yi ñoom ñu koy bay bu ko defee ñu koy séddoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ca lañ nekk ba yonent bi faatu Abubakar faatu ci jamonoy Omar la leen fa Omar doog a jëlee ñu doog a dem fa la nga xam ne ni moom mooy Sham ala kulli xaal li tax waa ju dugal xadis bi ci biir bunt bi mooy la yonent bi wax Ali na ko boo demee yaa ngi jihaad de waaye su jubluwaay dëgg-dëgg na doon dugal leen ci lislaam ca mbokki loolu moo doon jihaadul islaam islaam musul jihaad ngir conquérir am ay suuf yu bees wala alal jihaatu lislaam yépp moo nekkoon fexe ba nit ñi dugg ci biir lislaam jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak dara mi ngi noonu
wa an anas radi allahu anhu anna fatan min aslam qaal ya rasul allah inni uridu alghazl wa laysa ma'i ma atajahhazu bih qaal ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم
xadis bii nga xam ne moo tëj bunt bi mooy xadisu anas radiallahu anhu ann fatan min aslam ne benn góor gu bokk ci aslam day qaal ya rasul allah inni uridu alghazwa wa laysa maya ma atajahazu bihi man day dama bëgg dem geeri waaye ooma lenn lu ma yóbbaloo fa qaala iti fulanan fa innahu qad kaana tajahaza fa marida mu ne ko demal dikkal diw moom day yóbbalu woon na ba pare waaye mu daal di feebar fa ataahu fa qaal mu dikkal ko wax ko ne ko inna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqri'uka salaam wa yaqul yonent bi day mi ngi lay nuyu waaye nee na aatini lazi tajahhasta bihi jox ma la nga xam ne moom nga yóbbaloo naroon a yóbbaloo ci sa xare ba fa qaala yaa fulaana waa ji ne ey yow diw muy soxnaam atihi lazi tajahastu bihi jox ko la nga xam ne moom laa waajale woon ngir xare bi wala taxbisi minhu shay'a ca bu ci fekk lenn ca la ma naroon a yóbbu fa wallahi laa taxbisi minhu shay'an fa yubaaraka laka fihi maa ngi lay seedal ne doo ci garde dara yàlla subhanahu wa taala barkeelal ñu loolu mbokk jàng nañ ci alquran sunu borom di wax lenn ci ay ndaw walazina ida ma jaauka li taxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min addam xasanan an laa yajidu ma yunfiqoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanan waajal dem armée yonent bi léeg-léeg daana am ay giléem yu nekk à sa disposition comme ni nga ko xamee woon yow ma Tabuk Ousmane kese indi na ñetti téeméeri giléem ak ab yóbbalam waaye joxe nañ ba mu jeex amoon na ay jeunes yu ñëw ay yom yàlla yónni ñi ngi ne ak suñu jaasi dañoo bëgg nag loo xam ne nii moom la ñu war pour mën a jihaati te boo 400 kilomètres la woon loolu yonent bi naa wax dëgg war waaye jeex na ñuy nibbi di jooy ngir bëgg a jihaat mën lañu jihaat gis ngeen am maa kii nag moom daa ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko ah yom yàlla yónni maa ngi nii de damaa bëgg a ànd ak armée bi jihaat waaye ooma dara mu ne ko day diw day tàgg woon nee na ma dafa bëgg a jihaat gannaaw ba mu feebar demal nga ne ko yonent yàlla bi nee na nga jox ma li nga naroon a génne jihaat bi mu ñëwee fekk ko fi mu feebar mu wax ko ko da daa daa di woo soxnaam na ko dajaleel bagage yi ma naroon a yóbbu yépp mi ngi noonu nga jox ko waa ji mu yóbbu maa ngi lay sant nag bu ci garde dara amul loo ci garde yàlla di ko barkeel maadaama yéene woon naa ko yóbbu jihaad te yonent bi alei salaam nee nañu yóbbu ko jihaad loolu ñuy gis sahabatul kiram niñ meloon muy wane it ne jullit heure boo yéenee def lu baax même bu dee gàllankoor am na gàllawaay lu baax loolu matal ko masalan am na ci loo xam ni day nekk sax farata benn waaye ngi yéene woon na dem makka ba dajale paasu makkaam yàlla nattu ko masalan mu paralysé mënatul dem màkk lan mooy pexe na woo ko masa dem màkk mu jox ko loolu mu dem ajale ko màkka naka noonu it lu aju ci wàllu sarax lu aju ci lépp loo naroon a def ci lu baax gàllankoor am ca ngalawaay fexeel ba loolee nga xam ne jëf la nga fexe ba def ko ngiree bañ a neenal la nga xam ne mooy sa jëf mi ngi noonu ci wàllu
باب في التعاون على البر والتقوى قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه مسلم
buntu ñaar fukk ak benn ci téere riyaadu salihin mooy baabun fi taawuni alal birri wa taqwa buntu ci dimbalante ci luy jur njëkk ak ragal yàlla mu ne qaala taala wa taawunu alal birri wa taqwa dimbalante leen ci lépp luy jur njëkk ak ragal yàlla wa qaala taala wal asr mu ne mi ngi waat ci jamono muy temps inna al insana la fi xusr doomu aadamaa ngi ci perte illa alladina amanu wa amilu salihat lu dul ña nga xam ne dañoo gëm ca jëf-jëf yu yiw ya wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr ñu dénkante yiw dénkante ak muñ qaala imaamu shafii rahimahullah imaamu shafii day daana wax ne kalaaman maanaahu wax joo xam ne mënees na tey dégg ne maanaama mooy inna naasa aw aksaruhum fi gaflatin min tadabburi hadihi suura nit ñi day wala boog la ëpp ca ñoom càggante nañu ci settantal saar wi waan abi abdurahman zayd ibnu xaalid aljuhayni radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jahaza gaaziyan fi sabilillah faqad gaza wa man xalafa gaaziyan fi ahlihi bi xayr faqad gaza yonente bi alei salaam nee na koo xam ne dafa yóbbalul dafa jox ab yóbbal kuy jihaat ci yoonu yàlla kooku kay jihaat na koo xam ne dafa dem jihaad ci yoonu yàlla nga wuutu ko ci këram gardeel ko këram kooku it yow jihaad nga wan abi said al qudri radiallahu anhu an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baasa baasan ila bani ila bani lahyaan min huzayl yonent bi alayhi salaam dafa yónni benn armée bu ndaw jëme ca bani lahyaan bu bokk ci gër gu ñox huzayl gannaaw ba mu ne liyan ba'is min kulli rajulayni ahaduhuma wal ajru baynahuma na génn diggante ñaari góor ñépp kenn ca ñoom pay ba dana nekk ca seen diggante beneen xadis bi mooy an ibn abbas radiallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am foofu la ñeem kon ngi noonu ala kulli xaal mbokk bunt bi day feddali bunt bi ñu passé mooy dimbalante leen ci lépp luy jur ak njëkk ci wàllu diine wala wàllu àdduna dim dimbalante leen ci lépp luy jur ak ragal yàlla comme niñ ko waxe woon mu indi suura boo xam ne bokk na lam ca wax ku mel ni imaam Shafii nee ñu nit ñi day néew nañuy seetantal saar bi bal am na riwaayo yuñ ko waxal sax nee na bu doonte ne alquran saar bi dong moo ci wàcc kon doon nañu gis ne dana doy doomu aadama yi bu doonte ne saar bi kese ci wàcc doon na doy doomu aadama yi sunu borom subhanahu wa taala lim ciy wax mooy mi ngi waat ci temps te mbokk temps mooy lépp amul looy def lu dul yaa ngi ko def ci temps waxtu sàngam gis nga julli yi dafa am waxtu yu mu valable tey jii bu ñu bëggoon a jóg léegi julli gee ba pare ne nañ julli fajar bala ñuy teqali ko xam ngeen du sotti il faut temps fajar am lépp loo def ci tàngu ko def loolu it muy wane ne gu jullit bi war na fexe ba temps yépp nekk jaamu yàlla mi ngi noonu mu ne mi ngi wàcc ci temps ne doomu aadama day ci perte la nekk lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm ca mooy la yàlla gëmlu jëf lu baax ca mooy jëfi sunna lu baax mbokk mooy sunna rek lépp lu baax te du sunna ak lu mu sell sell ca yàlla tax yàlla du ko nangu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ak lu mu sell sell yàlla du ko nangu dañuy nettali ne amoon na ay temps ci Palestine xam ngeen ne am na ay chrétiens yu fa nekk am na ay jigéen yoo xam ni dañ daan jaamoo yàlla dem dajale lafañ yeeg gaana yeeg ñi nekk ci mbedd mi di leen jox seen bopp ci njaaloo ndax ñu ne ñii kat amuñu soxna amuñu xaalis bu ñu fayee caga ji te ay nit lañu dañ ko soxla ñuy jaamu yàlla ci loolu xam nga mbokk loolu dañuy gis ne mën nañu wax sax bànneex nekku ca yàllaa tax ñu koy def mais ndax loolu yàlla dana ko nangu laa ba den yàlla du nangu loolu waaye loolu it ak julli lu mu rafet rafet ak lu mu mën a doon ci jaamu yàlla bu dëppawul ak sunna yàlla subhanahu wa taala du ko nangu kon amalu saalix mooy luy dëppoo ak sunna waaye it gannaaw ba nga gëmee di def lu baax ngay digleente lu baax loolu koo ko mën a digal wa tawaasoo bil xaq al xaq mooy li jóge ci yàlla ak yonent yàlla digal nit ñi ñu jëfe alxuraan ak sunna waaye digal nit ñi ñu muñ rawatina kuy jëfe alxuraan ak sunna kookoo gën a ah soxla ñu digal ko muy muñ ca moo di ne lu ne dañ la ko yàq mi ngi noonu ana xale bu jigéen mi ngi may woo rek ci bitim réew la nekk fi ci Italie di ma wax jafe-jafe yi muy am ak environnement ci l'islam bi muy dund day wax ne gorom bi da koy fekk di xëcc kol gi di sànni naan ko lii ngay def kaza wa kaza ku mel noonu dafa soxla ñu koy wax mu muñ gannaaw ba it natt yu jóge ci yàlla di dal nit ki ak ñàkk la ak feebar la ak kaza wa kaza loolu it da ngay gis ne dafa soxla muñ comme def santaan yi def tere yi dafa soxla muñ muñ yooyu yépp dañ ko war a dénkante sunu biir ca it booy dénkante dëgg day fekk yaa nga ca booy dénkante muñ day fekk yaa nga ca am na xadis bi njëkk ci bunt boobu gis nañu yeneen ci bàyyi salaam dane képp koo xamee ni nii gis na koy jihaat ci yoonu yàlla amul lum jihaate mu jox ko moyen ba mu dem kooku moo ko jihaat ñoo yem ca loolu it bañ la leçon bu jeunesse bi war a jël mooy léeg-léeg jeune yow doo am dara mais am nga sa kàttan foo dégg l'islam woote na fa ci liggéey nga la waa yóbbul sa doole joojee jëfandikoo ko foofu ndax mi ngi noonu ñi amuñu dara lu dul seen doole biñ ñee ñu jox leen kàttan pour ñu dem yeneen ci bari islam yi nee na koo xam ne sa mbokk sa dëkkandoo dafa dem jihaati nga gardeel ko këram xam ngeen ne wala fi lu ñaan picc nga ci kaw xelam maa nga ca suuf képp ku tukki yaa ngi xalaat sa njaboot rawatina jamono bi nga xam ne téléphone amul télécommunication amul yow nga wóotu ko ci këram lu fa xew nga taxaw luy danger nga fekk ko ku mel noonu yaa koy jihaat ci yoonu yàlla yéen a yem loolu it di mbir boo xam ne ku ne war na ci bàyyi xel amma beneen xadis bi mooy yonent bi alayhi salaam dafa yónni benn armée buy war a génn waaye ñim doon waxal mu ne jarul yéen ñépp ngeen di dem fu ñaar nekk rek nañ dem mooy ñaari frère ngeen ne kenn ki dem ki ci des toog ñaari dëkkandoo yu am di jàmm ngeen ne kenn ki dem ki ci gis garde kër yi su ko defee pay ba yéen a koy bokk te loolu itamit mi nga noonu rek la ñuy gis ñu koy jëfe ci suñu famille yi sax mooy dara xew na ñu ne ah waaw diw na diw dem mooy famille bu nekk bu ci kenn jógee rek baax na représenté ñu ca des loolu itamit muy wone ne jullit ñi ni ñu war a jàppalante ci benn dem defi ndigal yàlla ci génn waaye it wuutoonte ci sunu kër yi bu dee kenn dem na nga wuutu ko la nga xamee ne ni moom mooy sa gannaaw te it loolu it bind bu rëy dina ci ñeel jigéen ñi jigéen ñi ñëw nañ ci yonent bi alayhi salaam góor ñi ñooy dem di jihaati yàlla tagg leen wax seeni daraja waaw ñun jigéen ñi dañoo bëgg a jihaati yonent bi alayhi salaam ne bépp jigéen bu toog kër jëkkëram muñ fa muñ gu rafet ba jëkkëram jihaati ba ñëw lu mu am ci tuyaaba yàlla bindal ko ko gis ngeen mi ngi noonu
عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه وفي رواية الذي يعطي ما أمر به وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع أي المتصدقين وكلاهما صحيح
mbokk xadiisu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci téere bi ki ñu koy jàngal mooy an ibn abbas radiallahu anhuma anna rasulullahi salallahu alayhi wa sallam laqiya rakban bi rawxa yonent bi dafa dajeeg benn gawar gawar mooy mbooloo mu war ci place bu ñuy wax rawxa diggante Makka ak Madina fa qaala mañul qawmu yonent bi ne waaye xeet bi ñan lañu qaalu almuslimuun ñu ne ñun ndey ñooy julit ay julit lañu ñoom it ñu ne ko fa qaalu man anta ñu ne ko yow nag yaay kan qaala rasulullah mu ne man maay yonent yàlla bi fa rafaat ilayhi imraatun sabiyan fa qaalat ali haza xajjun benn ndaw yëkkati benn xale ne ko ay yumi yàlla yori ndax kii dana am acc qaala na am wala ki ajr dana ko ñeel acc te dana la ñeel pay wa an abi musa al ashari radiallahu anhu an nabia sallallahu alayhi wa sallam qaal abi Moussa it nettali na yonent bi nee na alxaasinul muslim mu ne ki nga xam ne moom mooy gérant jullit al amin bu wóor allazi yunfizu ma umira bi koo xam ne day doxal lañ ko sant ca mbir ma fa yutihi kaamilan muwaffaran mu joxe ko mu daal di doon loo xam ne lu mat la loo xam ne nii lu dajale la ay mat na sëkk comme ni ko wolof di waxee tayyibatan bihi nafsuhu teeyal ca bakkanam fa yadfa'uhu ila allazi umira lahu bihi ñu daali koy joxe ca kan ka sant ca ñu joxe ko ko ku mel noonu day ahadul mutasaddiqin wala ahadul mutasaddiqayni kenn la ca ñaar ña nga xam ne day sarxe day wax ne rek am na ñuy wax mutasaddiqayni am ñu wax mutasaddiqin moom lay wax naan ay riwaaya bi fatxi qaaf ak yu deme noonu ala kulli xaal mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dem di aji màkka ci yoon yi moo dajeeg mbooloo te xam ngeen at gi mu doon at dañoo annoncé ci dëkk yépp ne yonent bi alayhi salaam mi ngi aji si at gi daje woon na fa ak téeméeri junni ak ñeent fukki junni nit mu nekkoon mbir mu bari lool ci jamono jooju téeméeri junni daje lu bari woor la donte ne par rapport ak léegi daa di ko dëkk bu mel ne Indonésie rek yaakaar naa war nañoo mën a yóbbu lu jege loolu waaye mi ngi noonu at yi dana jege 3 millions et 3 millions et quelques ala kulli xaal yonent bi dajeeg benn mbooloo mu ne leen wax yéen ñeeneen ñan ñoom waxuñu ko ñun ñooy waa Saalum wala ñun ñooy waa Bawol mais ñu ne ko ñun ay jullit lañu waaye gaa yi waxuñu ko ñun ñooy waa kër sëñ ndàngam de neewuñu ko ñun ñooy waa Aboubacar wala ñu ñëw waa Omar waaye ñun ay jullit lañu ak neexoon jullit ñëpp di woote noonu man muslim la muslim mu jeex waaye da ngay gis koo xam ne ni balaa fonk doomu aadama bi xam ne ci mbooloo sàngam la bokk te gis na ko muy jullee ko woor mbokk loolu musiba mënu ko passé ah benn sunu benn waay buy ñëw fii commerçant la ci Sandaga bis dafa benn góor bu dugg ci magasin na ko diw bal ma àq mu ne ko wax góor gi lan la mën a bal ma àq rek li ma la gis sàndaga yépp ab set laa la tegoon yaa ngi dégg ndekete yoote yow ci groupe quatre nga bokk ci gàttal ala kulli xaal mbokk loolu musiba mënu koo paase mënu ko bal ma àq ndax ñu ngi noonu su ko defee al muslim mais da ngay gis tey boo demoon Occident sama benn mbokk sambature bi mooy wax neen dafa dem Turquie ànd ak benn xaritam nee na ñu jëm ci restaurant bi gis benn waay mi ngi génn ñëw dajeeg ñoom xool leen ak seeni sikkim mu ne muslim ñu ne ko na am muslim mu lëng leen lëng leen daal di ndeysaan delluwaat ci restaurant bi nee na ñoom ñu dugg à table xamuñu lu xew ñëw lekk ba pare di woote di fay ñu ne leen non waa ji fi génn léegi fayal na leen moo ko xoolal lii du ko neex tey la leen mës a gis tey la leen di mujj a gis bëgg leen fonk leen faye leen lu tax muslim muslim jeex na su ko defee kon lool la yéenay ñan ñu ne muslimoon ñoom it ñu ne ko waa yooyu yaay kan mu ne man may rasulullah mi ngi noonu al islam mi ngi noonu jeex na inna dini la al islam yàlla l'islam la bëgg mais te dañuy jàpp ne yow bala ngaa jàpp ci dara fokk nga jàpp ci l'islam ak leneen luñ ca dolli loolu mbokk musiba bu ñu yàlla nattoo la yow yaay kan mu ne man may rasulullah te mbokk boobu télé xewul rajo xewul wala mi ngi noonu mooy da ngay gëm nit ki doo ko gis doo ko dégg ñu ngi jógewoon ci àll bi yow man may rasulullah benn jigéen yëkkati doomam na ko waaw ndax kii bu ajee dana màcc yeneen bi na ko ah kay dana màcc te wet da nga am pay loolu mbokk mu wañe ne xale bépp xale lu mu def ci lu baax yàlla bindal ko ko amaa lu bon yàlla du ko ko bindal xale kenn du ko bindal bàkkaar tant que majeurul amma la muy def ci lu baax masalan aj màkka nga ànd ak sa doom ngeen dem armal nga arm armalal ko même bu comprendre lu nga yéene yàlla maa ngi yéene armalal sama doom bi wëral ko kaaba gi daw safa ak marwa mu teew arafat am na tuyaabay aj donte ne aj bi naafile lay doon ci moom su ko defee bis bu ma géré ak aju l'islam ndax booba kenn joxugu ko responsabilité naka noonu tamit lañ war a tàmbale suñu njaboot di leen indi ci jàkk ji ñuy julli xale bi ma juragul lu mu julli ñu bindal ko tuyaaba yow ma ko ca ñaax am tuyaaba ñaax leen ñuy woor heure bu wooree am tuyaaba yow mi ko ci ñaax am tuyaaba moo tax mu ne ndax kii day am at ah kay te yow it da ngay am la nga xam ne moom mooy ab pay mbokk la nga xamee ne nii mooy hadis bi ci tegu mooy yonent bi alayhi salaam dana bépp gérant buy gérer dara magasin la ay tool la ay bàyyuma la ala kulli xaal lañ la def gérant léegi kilifa bi nga xam ne moo lay géraloo léeg-léeg mu ne la joxal ma diw dara yóbbul ma diw dara nee na bu dee waa ji dafa nekk muslim te xam ngeen tamit jëf lu mu rafet rafet bala ko yàlla nangu dee fekk nga nekk muslim yéeféer bi lu mu mën a defal yàlla yàlla gis ko léegi kooku nga xam ne day def ndigalu kilifaam ci magasin bi ci tool bi ca càmm ga ci lu mu mën a doon lu patron bi joxe ci lu baax mu daal di koy matal yàlla da koy bindal pay bu toll ne pay bi patron bi am pay bu toll ne pay bi patron bi am mbokk lii wallahi sunu ministre yi sunu maire yi suñu xamoon lii dañu xam ne yàlla ubbil na leen buntu jaamu yàlla bu rëy yow ñëw nga ñu jël budget dix milliards teg sa loxo Sénégal gu pauvre gi àll bi bu ñu añee duñu reer nga jël dix milliards yi gérer ko dërëm bu ne nga teg ko fa mu ko war a teg wallahi yàlla bindalu tuyaaba dix milliards waaye nos soucis d'argent sont terminés dix milliards yi ngi nii nga téq trois yi dugal fii sa directeur teqi moom it deux teg fee ka ca tegu teqi un teg fee ba dix milliards yi jëmoon ci paysans yi au fin bu ca trois milliards yeggee bari na mbokk musiba mënut a passé loolu su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee jullit day kontaan ci yor kees doonte ne danger bu rëy ma nga ca nekk waaye heure boo géré woon kees géré woon tool géré woon lu mu mën a doon lépp luñ la sant nga defee ko nan ñamam kees nga bëggee tuyaa ba buñ ca am nga am ca bu tol noonu loolu da ngay gis wallahi moo gën a dal xel moo ëpp assurance la nga cay jël ci yëguñu ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne ne am na yeneen xadis sax yuy wane ne même lañ la ca santul ca buñ ko yéegoo ne du leen naqari loolee da ngay gis ne yàlla dala koy bindal am la yeneen ci bàyyi salaatu wasalaam wax ne bépp soxna bu dépensé ci alali jëkkëram ci loo xam ne àndul ak yàq yàlla da ko koy bindal bindal ko jëkkëram i ngi noonu yàlla dala ko bi ñu bindal ko jëkkëram tey benn gérant ngi ñu nekk ci magasin bi masalan benn waaye ngi ñëw ne lu waay am delluwaan nga yëkkati deux cent jox ko bu fi patron bi nekkoon it mën nga koo def du ci wax dara loolee da ngay gis ne yéen ñaar ñépp a ci am tuyaaba amma lépp loo xam ne soo ko defoon mu naqari patron bi loolu jëw lay doon kooku moom bàkkaar nga cee am amma xadis bi ñuy mujj mbokk julit mooy wala boog xadis boobu yaakaar naa moom lañ mujj woon waaw foog naa ne dañuy insha allah jéem a doyloo loolu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy dégguloo ku ko neex yàlla nañuy wërsëgal ñu dégg waxi yàlla ak waxi yonent yàlla waaye gannaaw bañ ko déggee yàlla na yàlla wërsëgal ñu jëfe ca ca woote ca wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad waaw yaa ko jërëjëf incha allah